<laughs> ñu ngi déglu Walfadjri bëgg a xam lan la réew mi yëndoo ak la mu fanaanoo ci xët yi Walf Quotidien lam ñu ci jukkil euh, Walf Quotidien dafa xëyee dellu si ci tournée gi nga xam daanaka opposition bi ñu koy amal daanaka ci biir réew mi dañuy gis ne jamono ji dafa ay benk ñenk ci am li ko waral mooy waxtu fu ñuy jàmmee ay gendarme ak ay policiers ñoo leen di arrêté sax mm-hmm. yéen a kaay giir Walf Quotidien xëyee tey daal ci amal taxaw seetlu waaye bu ñu sukkandikoo ci administration bi moom dañuy jàpp ne ñoo jaarul ci yoon ndaxte bu ñuy dugg ci ab bërëb dañu war a dara noonu la ko yéen i kaay gi di Walf Quotidien xëy fësal leen aussi loo xam yéen i kaay gi di Walf Quotidien xëy na ko fësal te mooy Euh, euh, mooy euh, jafe-jafe yi nga xam ne ni mhm. sénégalais yi ñu ngi koy dund jamono ji mu soxal wàllu courant bi subvention électricité bi nekk un mal nécessaire yéen kaay ki di Ousseynou Gueye kon moom la xëy tey ji mhm. daal di ci amal ab chronique mangoog tribune yéen kaay gi de la tribune dafa xëyee dellu soir ci rapport 2023 muy soxal Civicus Monitor ab ab ab maanaam bànqaas la ko xam dafa mhm. yëngatu ci wàllu liberté civique gis nañ daal Sénégal jamono ji daanaka da cee deltu ginnaaw bu baax a baax ci at mi ko yéen a kaay gi di la tribune xëy fësale l'info lum ñu jukkil yéen a kaay gi di l'info ci loolu xëy dellu si waat ne rapport la boo xam ne nii moom la ñu tuppee si ficus monitor ab rapport la goo xam dafay wax ci liberté civique ci atum uh-huh. la Sénégal na uh-huh. de l' opposition maanaam kii jiite opposition ñu ngi ko jël uh-huh. uh, uh, bi xuus na yéene kaay gi yor tamit loolu xëy dellusiwaat wax ci rapport annuel civique uh, civicus monitor mu soxal ci wàllu liberté société civile yi nga xam ne daal Sénégal jamono ji euh, mu ngi ci réew yi nga xam daanaka jaay doole lañ fi nekkee euh, maanaam lu ma neex ngay def. Mm-hmm. boo ko deful ma jàpp daal lay duma noonu la ko yéen a kaay ngir yor yor xëy fësal. yéen a kaay geneen critique président Macky Sall mel na kuy topp kuy tontu rapport boobule moo tax démb ci dajab conseil des ministres ma ngay fësal euh, copp daal yi nga xam bëgg na koy indi mu soxal ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ak it ñi fi nekk di fi dugal ak alal yoo xam daanaka sellut euh, ba ci wàllu terrorisme noonu la ko yéen a kaay gii daa di critiquer euh, Sud a kaay gii Sud Quotidien ne neexul ba neexul financement parti politique bu fekkente ne am na benkañ gi ci am uh-huh. euh, Abdou Diouf bokk am na ci am na ci part de responsabilité Abdoulaye Wade ba ci kii di président Macky Sall li ko waral mooy kay ñoom dañoo jéemul dara ci seen opposition uh-huh. maanaam du leen jàppale ci lenn Euh, te mooy day ñoom jamono ji li nga nguufaan alal réew mi te pas ne opposition bi ci nguur gi la bokk mm-hmm. euh, tax yéen i kaay di ci amal euh, heures ne président Macky fu mu toll kontaanul ci la nga xam moo aju ci wàllu communication moom kontaanu ci benn yoon moo tax démb ci ndajam conseil des ministres dafa jàpp communication gouvernementale dafa daanu lool dafa wàcc ba tax muy sàkku ci gars daal ñu jël ci ay matukaay nañu la ko Euh, réew mi quotidien ku mu dalal application loi sur le financement des partis politiques Doudou Wade wax na ci. Uh-huh. moom nag dafa joxoñ ab para euh, ab baram opposition bi ne li la war dañ ko ca deful. Uh-huh. noonu la ko yéen a kaay gii di réew mi xëy fësal. Euh, bés bi le jour. dafa ñëw di ñu fàttali am. Uh-huh. jamono ji nga xam ci la ñuy déposé parrainage yi fële ci conseil constitutionnel loolu atum 2019 ak candidat yi nga xam ne leen koy recalé. waaw yéen kon mu ngi dundal. Euh, parrainage bi ci atum 2019 mu ngi ci yéen a kaay gii di bés bi. ma ngoog euh, le quotidien. président Macky ne yéenam ak bëgg-bëggam mooy lépp loo xam ne ni yoon la wala ay édifice mhm. yoo xam ne nguur gi ko amee ñu tuddee ko ay kilifa yu mag. ay nit ñoo xam dañoo liggéeyal Afrique dañoo liggéeyal Sénégal. Mhm. te loolu kon mu ngi sàkku ci mbooleem maire yi nekk Sénégal ñu roy ci ñu roy ci loolu. waaw noonu la ko yéen a kaay gii di le quotidien xëy fësal. ma ngoog euh, soleil fu mu jëm. président Macky wax na ci sanctuaire Marial Boukoungine ñu ngi ko war a ubbi ko ni gannaaw ëllëg am samedi lay doon mm-hmm. ñu fas yéene koy def nag ci teewaay ki nga xam ne moom moo di envoyé bu Pape François foofu nag président Macky Sall ndaal ñu lépp lépp daal lu matukaay mm-hmm. ngir xew xew wala mën a jaar ci yoon noonu la ko yéene kaay gi di la Soleil xëy yéene kaay bi di Source A lu doy waar la moo am fële ci agence crédit mutuel du Sénégal nekk fële ci El Euh, si euh, juróomi liggéeykat ya fa ne daanaka jamono ji caabi féete leen ginnaaw li ko war nag moo di ay prêt yu ñu doon def mhm. prêt yooyu nag euh, ndekete jaar woon ci yoon noonu la ko yéene kaay ngir source ak ay fësal ma goog lu man daa Ahmed ay dara njàqare gi mu am jëmale ko ci marché ak gré à gré bi nga xam ñu ko tudd ci ministère de la santé marché bi nag mu ngi toll ci juróom-ñaar fukk ak benn milliard ci franc CFA nee dossier boobu sax fu mu toll nii mu ngi ci loxol waa union européenne mhm. Ahmed Aïdara nag mu ngay fësal njàqare ak tiis gi ma ci am noonu la ko yéen gi di la mandat xëy fësal am euh, enquête lu mu fësal ak enquête euh, yéen xëy dellu si waxtaan mhm. ci Euh, bor yi nga xam ni. waaw nguur gi mu ngi ko amee société yi fi nekk tey ngóob ci wàllu distribution pétrolière. Mhm. Euh, pétrole. waaw nee nag ñoom jamono ji état bi mu Sénégal mu leen yàlla lu ci tolloog téeméer ak ñeent fukki milliards ci franc CFA. Euh, ñoom daal la sàkku ci gouvernement bu Sénégal moom fay leen ko balaa lambaye ñaw mhm. ñu la ko yéene kaay gii di l'enquête xëy Fesal Abdoulaye ngoog ñu jeexale kook suñu lamb wax ci combat gi war a dox ci diggante Diène Kairé kii di Zarko Euh, booy Kayre mi bàyyu ji bébé jën euh, ak kii di jën euh, Kayre wax na ci ah. Mm-hmm. nee na combat bi écarté wu ci kaw kawoo. maanaam dóor mu daan daal mun na ci am na ci am. la ko a kaay gis suñu làmb xëy fësale ci jamono jëlee taxawal nañu combat gi nga xam a dox ci diggante Gris 2 ak doomu mm-hmm. Ba faram-fàcce gi am na solo lool bégg nañu lool ci xibaaru suba si ci walla